ana kersa subhanallah fan lañ nekk tey fan lañ toll tey ci kersa mooy am loo xam ne da nga koy jomb suñu suñu mag yi suñu maam yi suñu wayjur yi amoon na ay mbir yoo xam ne dañ ko daan jomb waaye ñun tey xool leen tey yàqute bi xool leen tey réseaux sociaux yi nu la neex ngay wax lu la neex ngay def lu la neex ngay sol lu la neex subhanallah yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ci xadis muslim nee na alxaya min al iman kersa ci ngëm yàlla bokk motax tax mu ne ci hadithul hakim rahimahullah nee kersa ak ngam yàlla ñoy ànd bi bu démé rek bee day dem innal haya wal iman qurina jamia fa idha rufia ahaduhuma rufia al akhar nit ñi tay xolal bu kersa ne wut fa rek ngam yàlla dem na subhanallah tay xol leen nit ñi xol leen nit ñi nu ñu mel ci tit ci worate ci wax lu dul deug motax سلمان الفارس من يح رضي الله عنه anhu في جامع جامع الوالحكم نينا xikam بنا مين بغل bu day dindi ci moom mooy kersa ak kóolute inna allaha ida araada bi abdin halaakan nazaa minhu l amaana wal xayaa subhanallah nit ki day nekk koo xam day triande day wax lu dul dëgg ngeen jéggal ma day day nar subhanallah day wax du dëgg day dóoraate ba ci tuddee ko diine subhanallah tuddee ko diine di dóor ay nit di lekk seen alal ci caaxaan di nax ay nit di wax lu dul dëgg ay liggéeykat yoo xam ne duñu wax dëgg loolu jikko na feqal yonent sa sam neena na jikko na feqal te na feq safar lañ jëm yàlla na ma ci yàlla musal yàlla na ci yàlla musal nañu yew avant dé avant bamel avant bespench